ASC yi lu tax ñu porté ki c'est lu simple la parce que bu ñu commencé ba léegi ASC lu yàgg la mouvement nawetaan lu yàgg si Sénégal mais aussi de fi ngeen toll ñu ñooy commune bi nga xam ne si presque ci Dakar ñu rek ñoo am ñaari zone ñoo am zone 7A ak zone 7C ñoo am 19 ASC am ñaari zone yi et ñooñu aussi itam depuis le mois de septembre ñu amoon maire amoon gis-gis ak ànd ak conseil municipal bi ñu waxtaan ak conseil municipal bi ni dama bëgg dama bëgg ñu def sensibilisation parce que bi Covid bi commencer ba léegi en Bel-Air déboursé ne presque lu mat trois cent voire trois cent cinquante millions pour lan pour xeex jàmmaarloo coronavirus. mais bu ñu xeexee def loolu yóbbu ay kit yi dem si op structure sanitaire yi dem ci école yi dem fépp yóbbu lavoir yi yóbbu ay gel hydroalcoolique yóbbu masque yi def dotation di remercier aussi nos partenaires parce que am na ñu xam si ay entreprise lañu jàppale ñu si loolu xeex boobu mais bu ñu demee à un moment ñu continuer combat boobu ñu ne nañu dem seeti xale yi. parce que comme croix rouge nu mu ko defee ñëw vers la mairie proposer ñu projet am ñu déglu leen accompagner leen ba maire mujjoon na sax mettre à disposition un véhicule bi nga xam ne si de liaison ñu def tout le tour de la commune madame la maire de Dakar ñëw jàppale son son jeune frère le maire de Hann mais tey ñu dellu si waat bon ASC yooyu comme ASC yi aussi ay vecteur de porteur de voix la ñu ay ASC yi aussi dañuy dem dans les coins et les plus recoins ASC nekk l'entité sociale presque la plus démocratique la plus représentative ñu jaar ci ñoom wax ak ñoom ba ñoom aussi ñu indi ñu ko si nekk projet war naa leen projet yi projet yi ñu defoon nag continuer sensibilisation tey dañ leen di jox benn ndàmpaay contribution bu ndaw la bu ñu leen di jox contribution yi nag mënul régler tous les problèmes mais au moins ñu xam ni mairie baa ngi seen côté pour stimuler régler waale beneen question bi les autres ASC recevront les autres associations les organisations communautaires de base yu mel ne association socio-professionnelle yu mel ne neen organisation communautaire de base ku si nekk di nga jot li nga war a jot boo ko jotee aussi itam ñu continuer seen activité mais comme nous allons vers la fin de l'année c'est la raison pour laquelle ñu ñëw si ASC say tey mmh. waa projet yi aussi itam lu simple la stade municipal bi yàgg na fi yàgg na mais dañu ko dafa nekkoon si situation bi nga xam ne si vraiment problème mu sécurité daan na bu ñu footballé aussi itam bu ñu paree xale yi mouvement nawetaan bi ñu si bare yàq camp yi affaire dem stade bi ñu tëjoon ko ni dañ koy réparer conseil municipal bi chaque fois bu ñëwee ñoom ñëpp ñu ñëw ni vraiment nañu wax ci problème mu stade bi mu nekk vraiment doléance priorité si conseil municipal bi. ñu fexe ba ñu ni gazon synthétique fii ñu toll ni phase presque bu mujjee la phase terminale am na refection yu ñu si def boobu léegi yooyu presque war na mat cent cinquante wala deux cent millions et gazon synthétique bi rek mooy cinq cent millions yi mooy quatre cent quatre-vingt-huit quatre cent quarante-huit yi yooyu lu ñuy def yooyu moo ñu permettre aussi ñu am benn stade multifonctionnel stade boobu nag bu ñu ko amee mooy lan mooy dañu bëgg a delloo si football delloo si sport activité sportive yi ñu def ko bu baax a baax ba tax léegi ñuy ñaan ASC yi lii ñuy def tey dañ ko bëgg ñu préparer leen wax leen ni leen aussi itam USB bi nga xam ne si mooy ASC communal bi vraiment daañu ko redynamiser dem assemblée générale teggi structure yëpp vraiment ñu mën a taxaw ñu invité toutes les toutes les associations tous les sportifs ku nekk ñëw jàpp si. waaw rapport d'activité comme ni mu ko waxee ci tubaab sànq document de planification la moo lay tax nga mën a xayma juróomi at yi di ñëw lan laa war a def fukki at yi di ñëw lan laa war def si jeunesse ak sport xale yi jox nañ leen xaalis. ñu ngi def ay activité activités yi ñuy def nan lañ koy defee ñu xëy na du ñëpp ñoo ko mën a xam du ñëpp ñoo ko mën a liir mais bu zone bi jëlee xayma ko ci benn document def ko indi rapport partie financière bi ak partie technique bi activité yi mu ñëw wax ko maire maire soumettre ko conseil municipal bi bu conseil municipal bi xoolee buy def orientation budgétaire dañ samay ndawkat du ma def pilotage à vie mais ñii pendant année année année N ba année N plus lan la ñu soxla loolu ñu soxla ñu mën ko kii parce que ñu ay kilifa la ñu te kilifa du tâtonner te kilifa du du déggee ci mbedd kilifa dafay planifier te ñooñu am nañu ay ressources humaines de qualité am nañu ay planificateurs fii am fi ay spécialistes dans le domaine ñooñu ñu nga xam si daañu ko travailler beneen bi muy mujjee nag dama waxoon ne sport bi nañu déglu sportif yi parce que nag mënoo nekk mbirum làmb ba pare bëgg man ci mool yi mënoo nekk mool ba pare bëgg man ci ci ci ci nekk ci terrain bi football ñi nga xam ne si ñooy ay sportif nga déglu leen boo leen dégloo bu ñu waxee ba pare ni la lii la ñu soxla ñu def ko parce que dañ ko saytu woon amoon na ay année bu monsieur le maire Babacar Mbengue di ñëw en 2009 dafa fekkoon école Hann Bel-Air dellu ginnaaw trop mais bu mu saytoo nekk nit guy déglu amee une oreille attentive dafa woo gaa yëpp ñu ñëw mun leen léegi lan la ñu war a def enseignants yi ni que lii ñuy def mooy dañu organiser journée d'étude may remercier vraiment IEF Abdoulaye Wade bu ñu ko remercier bu ko defee léegi depuis ñetti at nous sommes les dans l'autonomie première. Donc, là, d'ici, d'ici 5 ans ou bien d'ici 3 ans, nous serons les premiers sur, tout le, sur le plan sportif. Et social, sportif, socio-économique extrêmement importante. Et je pense bien que pour, le, pour mobiliser la population et les sensibiliser sur l'importance de la contre la COVID-19, il fallait inéluctablement passer par les ASC. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ce choix. Nous avons porté notre choix sur les ASC pour continuer la sensibilisation. Aujourd'hui, on me dirait que c'est un peu tard, mais on a commencé le travail là depuis le mois de septembre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a commencé. Elles ont eu à faire beaucoup de, beaucoup de sensibilisation, d'activités relatives à cela, par des campagnes de sensibilisation, de conscientisation et de nettoiement, mais surtout en mettant l'accent sur les gestes barrières. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a vraiment donné aux 19 ASC les deux zones, plus euh, euh, vraiment la Croix-Rouge qui a été là depuis mois de mars à nos jours. Bon, acte de reconnaissance parce que les ASC, nous avons l'habitude de travailler avec elles. Chaque année, on donnait des subventions aux différentes ASC pendant les vacances, surtout pendant les périodes de nawetan. Cette année, les nawetan n'étant pas, on a fait ce qu'on appelle les nawetan de la Covid. Les ASC se sont mobilisés comme un seul homme et se sont, ont investi pratiquement tous les coins et recoins et elles se sont vraiment défendues corps et âme pour pouvoir vraiment sensibiliser, aller au plus profond des, du, des, quartiers, des quartiers pour pouvoir vraiment apporter la bonne parole. La bonne parole, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gestes barrières, Et je pense qu'aujourd'hui, ça a été une chose extrêmement importante et ça nous a permis de les réunir aujourd'hui pour leur dire que l'action que vous aviez entamée, voilà une participation symbolique de la mairie, mais loin, de, que, loin le fait que cela est terminé. On, a, on va continuer parce que la maladie, elle est là. On remercie vraiment l'État du Sénégal après avoir engagé tout ce combat. Mais nous aussi, en tant que collectivité locale, depuis mois de mars jusqu'à présent, on a débloqué vraiment pratiquement 300, 250 et entre 250 et 300 millions pour pouvoir vraiment apporter le kit alimentaire, les, tout ce qui est relatif vraiment au aux structures sanitaires, équipements au, niveau des, du gel hydroalcoolique, des masques et respecter les gestes barrières. Même à nos moments donné, on avait fermé nos, nos mosquées et nos, églises, et nos, et nos mais néanmoins, on continuait à sensibiliser. instance de votre euh, basket, de euh, terrain de basketball. parce que c'est une demande sociale qui est très forte. Parce que depuis pratiquement cinq ans, nous avons vraiment fermé notre stade pour des raisons de sécurité. Et chaque fois que de besoin, j'ai avec, avec, moi les conseils municipaux, mais aussi Madame la Présidente pour me témoigner, à chaque fois, lors des débats d'orientation budgétaire, même d'autres sessions, les conseillers à l'unanimité vraiment mettaient l'accent sur la nécessité d'avoir un stade multifonctionnel, un stade bifonctionnel. C'est la raison pour laquelle on a voté effectivement 500 millions pour le gazon synthétique, mais n'oubliez pas qu'il y avait presque 200 millions, 200 à 300 millions qui étaient mobilisés pour les tribunes, pour OCETOM, mettre en l'accent sur, euh, sur tout ce qui est réflexion Effectivement, parce que, parce que nous sommes au Sénégal. Et le Sénégal est un pays où la majorité est composée essentiellement de la jeunesse. Donc nous voulons avoir, mettre l'accent sur, la, sur notre jeunesse tout simplement pour avoir une jeunesse bien formée. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'avais mis l'accent sur la formation des moniteurs des collectivités éducatives, la formation des licences, des D, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus d'initiateurs de, de football, des licences D. Bref, on a d'autres formations et aujourd'hui quand on discute avec, euh, quand on discute avec le mouvement Nawetan, on aurait bien aimé organiser ce qu'on appelle les assises du football. Qui, veut, qui parle des assises, du football parle inéluctablement de la jeunesse. Et quand cela, moi je pense que le gros mot et ce qui vient tout souvent au niveau du conseil municipal, c'est mettre l'accent sur cette formation. parle de jeunes et, euh, et ce n'est pas tous les jeunes qui sont dans euh, progresser dans, mm. dans le sport, dans le domaine du sport. Est-ce quavez Et tout à l'heure, vous avez euh, énoncé l'immigration clandestine. Et ce que ces jeunes n'auront pas pensé que la mairie leur a laissé en Non, du tout, Parce que nous avons ici, lui, il est conseiller municipal, il est président de conseil de quartier. Nous avons au niveau de la commune aussi autant de conseils de quartier que de, que, que, que de, que de eux-mêmes. Donc l'ensemble de ces conseils de quartier sont constitués essentiellement par la jeunesse. Donc l'ossature est composée de la jeunesse. Cette jeunesse Nous continuerons aussi à leur donner des subventions. Nous donnons des subventions aux différentes organisations communautaires de base. Ce n'est pas seulement les ASC de football, mais toutes les organisations bien, organisées. À un moment donné, on avait demandé même d'avoir le récépissé pour être connu sur le, plan, sur de la légalité et de la loi. Mais à un moment donné, le maire a dit non, il faut donner à toutes les organisations parce que chaque organisation fait quelque chose. L'autre problème Donc les bras valides qui sont là, ce sont nos jeunes, ce sont nos parents. Moi qui vous parle, je suis issu d'une famille de pêcheurs, mais aujourd'hui, la pêche ne nourrit plus son homme. La mer est complètement polluée. Voilà ce que les désagréments, il a la dégradation, la dégradation de la baie d'Anne. Il y a aussi pas mal de choses qui font que les, tout le monde a baissé pavillon. À 40 ans déjà, on est à la retraite parce qu'on n'a plus d'outils et d'engins de pêche. Mais aujourd'hui la raison Aujourd'hui, je m'adresse personnellement au président de la République pour qu'il ait une pensée pieuse aux disparus, mais surtout revenir sur l'appui et les subventions qu'on donne, qu'on donne, aux, qu'on donne aux pêcheurs, parce aux jeunes pêcheurs, parce que moi je parle des jeunes pêcheurs de ma collectivité, parce qu'il y a la plupart, il a des morts, nous comptons encore nos morts et on souhaiterait vraiment arrêter et cela. Euh, Un rapport d'activité est un document de planification. Parce qu'aujourd'hui, je veux connaître le nombre d'ASC. Je veux connaître l'ensemble des jeunes qui s'agit dans le domaine des ASC. Je veux connaître pourquoi, à quelle activité ils s'adonnent. C'est la raison pour laquelle j'ai mis fortement l'accent sur ce qu'on appelle les activités socio-éducatives. Parce qu'il faut conscientiser, il faut sensibiliser, il faut éduquer. Parce qu'il y a de cela quelques années, et on disait au Sénégal, il faut allier sport et études. sport et études extrêmement important pour nous. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on aura ces documents, on pourra redresser et reprofiler, reprofiler vraiment le, euh, le, le, le les, les jeunes-là ont comme pensée, vraiment comme directive. Demain, on peut recadrer, on peut planer, on peut faire des projections d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans. Et c'est des statistiques que nous donnons à la NASD et qui donnera ça aussi au ministre, à l'État pour pouvoir vraiment mener à bien le commun. La somme de la subvention est à 9 900 000. Le chiffre rond, le chiffre métrique, c'est 10 millions. Et tout à l'heure, vous avez dit le sport aux sportifs. Voilà, le sport aux sportifs. Bah, Peut-être des gens comme moi, on dit les gens, les intellectuels, ils sont là, ils pensent à la place des autres. Et le sportif, c'est comme le pêcheur. Moi, j'ai dit que il faut les écouter. C'est la raison pour laquelle le bureau municipal, le conseil municipal a demandé à ce qu'on organise ces assises. Et les écouter comme on avait écouté les enseignants il y a de cela 5 ans. Et aujourd'hui, nous sommes les premiers, de l'arrondissement de Grand Dakar. Donc demain, quand on organisera ces assises, les sportifs, nous allons les écouter. Nous allons faire des termes de référence, mais nous allons faire des deux jours d'ateliers. Les ateliers, nous allons prioriser les projets, mais nous allons mettre l'accent essentiellement sur la demande et la volonté des, des, des, des, sportifs pour leur redonner vraiment leur blason et faire le sport de Anne la véritable activité sportive. Derrière.